gis ne partisanerie am na xam nga moom laa lay wax xam nga situation bu nekk wano situation bu nekk mhm. dafay am lu ko waral mhm. xam nga euh, jamonoy président Abdoulaye Wade quand on combattait avec le M23 sur le sur la troisième candidature mooy li ma la wax mooy ni que y a jamais eu d'utilisation de la justice pour éliminer des candidats xam nga wolof danaan ku ndobin rey sa maam boo gisee lu ñuul nga daw on a eu deux personnes censées être candidats pour qui en tout cas qui ont été éliminés de par la justice ñeneen ñi ils ont été éliminés de par un système qui est venu qui était là non éprouvé et sur lequel bon en tout cas euh, on a éliminé d'autres candidats c'est le parrainage mais ça dit que il faut que ça cesse il faut qu'on qu'on arrête d'avoir quelqu'un qui est là qui se choisit des adversaires donc du coup ça devient une nouvelle bataille boo xamante ni jamonoy M23 amul woon parce que mosuñu ko woon gis à situation nouvelle <laughs> bien bien bien sûr cest dire que mesure nouvelle. alors c'est tout, tout simplement comme ça qu'il faut le prendre c'est pas la personne de Ousmane Sonko mais tout, tout, toujours sur les principes d'élimination de candidats ça il faut le comprendre ainsi. Okay. d'accord maintenant xëy na dafa tombe moom mu tombé ci mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre aurait pu alors euh, quand on parle des détenus politiques euh, la libération des détenus politiques bokk na ci seen ay ponk yi nga xamante ni euh, bokk na ci ñeent ponk yi nga xamante ni moom la mu F24 euh, judduwaale boo leen waxee ay détenus politiques yéen ñan ngeen di wax parce que ci détenus yi am na si ñoo xamante ni ci ay post Facebook lañ leen jàppee am na si ñoo xamante ni peut-être ci ay écart de langage lañ leen jàppee am na si ñoo xamante ni ci manifestation yi lañ leen jàppee am na ñi ñu jàpp récemment ak bus bi nga xamante ni dañ ko calciné boo mu am deux morts boo leen wax détenu politique bu faites allusion ak yan yan genre de jeunes yi nga xam ñoom lañ jàpp. oui mais soxna si français lañ làkk de détenu politique la ñu wax. mais parce que ñii parce que am na si ñoo xamante ni dama leen lim. Mhm. bu fekkente ne ni réellement li enquête bi wax ñoom ñoo ko def par exemple. on peut prendre oui, euh, du bus qui a été calciné. nga mhm. xamante ni am na ay mots. waaw xam nga détenu politique xam nga détenu politique mhm. aussi dafa am définition. xam nga xam nga am na ñoo xamante ni comme ni nga ko waxee délit d'opinion la. et je pense que ñooñu amuñu lu ñu def ci ci kaso bi parce que nag politique la ñu nekk politique c'est-à-dire que on a entendu même le président Macky Sall dire des choses et il n'a jamais été inquiété quand il était euh, candidat ah, okay. non non quand il était candidat par exemple il a parlé li ñuy kaas nii ñenn ñi di ko wax ay d'aller déloger maître Abdoulaye Wade il l'a dit. mais loolu am jurul benn. benn jëye bu doy non non non non moom laa wax moo tax ma ni ci ay wax. xam nga on a parlé de wax moo tax man la détenu politique aussi euh, am na am na am na signification yeewuñu ne nañu li nañu libérer tous les détenus du Sénégal ok on a on est d'accord mais bien sûr ñun ñëpp a ñaawlu ay nit ñu dem fekk benn bus bu am ay nit nga taal ko kooku on va pas demander la libération des individus qui ont fait cela ça c'est clair xam nga ñooñu <laughs> mais na yoon dal seen kaw et vraiment de la manière la plus ferme possible mm-hmm. mais ça quand on parle de détenu politique am na ñëw am na am na définition lan mooy détenu politique et bon am na ñoo xamante ni aussi bien sûr il des exactions parfois parce que nit ci gëm-gëmam des fois dina dina dépasser xëy na certaines limites mais bon bien sûr raisonnablement et ñooñu aussi pour moi il faut les élargir de de de prison parce que il sert à rien de les xam nga à la différence de de certains systèmes euh, li ñuy tuddee Euh, loo musul def c'est-à-dire que tey xam nga am na ñoo xamante ni tey musuñoo dem prison musuñoo nekk ci yenn situation musuñu xëy na situation taxaw na jàpp nañu leen ci manifestation à la limite ñeneen taal nañu ñoom participer nañu c'est pas que forcément dañoo taal mais ñooñu on on les considère comme des détenus à libérer c'est-à-dire que ça aussi c'est la c'est la vérité parce que bon c'est notre mm-hmm. jeunesse qui est en prison defuñu fa dara des étudiants des trucs ah di leen au-delà de feesal leen c'est-à-dire il faut aujourd'hui les aider en tout cas à reprendre leur vie parce qu'il sert à rien de les garder dans les cachots pour faire quoi